salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum waa Sénégal ak mbooleem taskatu xibaar yi fi teew tey ñu leen di jaajafal bu baax a baax comme ni ko sama naataango Basirou jamay Faye euh, dooree dañuy jaajëfal presse bi wan leen suñu njàppandal wan leen ne ñu ngi taxaw ci seen wet ndax lii nekk di xew ci réew mi président Ousmane Sonko yàgg na ko wax lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa yeggee am naa yaakaar ne kenn ku yaakaar ne di nga ci mucc mooy xamuloo ñii seeni pexe ak lu ñu nar looloo tax nag ñu gis ni taskatu xibaar yi ñu ngi ci jël seen wàll ndax am na suñu benn koo xam ne dama koy wax naataango parce que partenaire la ndax dañ leen di gis tout le temps fu ñu nekkee ci terrain bi dañ ko fay gis muy si sa feuse bu buur ni ñu ko pamti pamte mën naa ne ni ñu ko toroxale ba mu jëlee ci xam waaye tamit keneen kii di Pape Alé nga xam ni amul dara loo xamante ne ni moom lañ ko tuumaal lu dul joxe xibaar boo xam ne am nañ yaakaar ne senegal yëpp yëg nañ ko loolu nag euh, su amee mooy parce que dañu nekk ci régime boo xam ne xëy na dañuy jàng wàllum dictature maanaam naka la ñuy ërtale sénégalais yi tiital leen fexe ba nga xam ne kenn dootul ñeme saqat waaye am naa yaakaar ne dañoo jaawale dëkk ndax loolu mënul am Sénégal te du fi mës am foog mu am ku wax foog mu am ñu wax foog mu am ñi wéy di wax doonte dañuy jàpp ñëpp di tëj wala di rey loolu moom booye boo ñu xam ko moo tax bu ñu jógee ci loolu dañuy aussi jaajëfal sénégalais yi parce que nag peuple ba endurant la maanaam askan la woo xamante ne ni wu nangoo muñ xeetu coono bu ne ñu leen koy teg te ñi leen koy teg saa yoo xëyee dégg seeni looxoor ay milliards yi milliards yi milliards moo ne day sénégalais yi ñu ngi dëkk dox ci gobar jaasi ñu ngi dëkk ci taaba taaba ngir mën a am lu ñu dundee waxuma sax ay fay njàng wala ak yu mel fii réew mi toll nga yor ko fukki at ak ñaar askan bi amul lu ñu noo leen toroxale lu lee ba mu bañ ne tot wal bëgg na nag léegi da ngay dóore foofu la ñu toll maanaam dinaa ko def dinaa leen toroxal waaye kenn du wax ku wax ma jàpp duma wala ma jàpp dugal ci kaso bi looloo tax nag ñu jàpp ni euh, mbokk yi lii dañ ko war a dakkal mooy ñi war a wax wax ñun jàpp na ne bokk nañ ci ñii ñuy war a wax moo tax ñoo ngi waxtaan ak askan wi saa su nekk di leen yee ci li fi am waaye di leen wax ñu bañ a nangu nooteel dañ ciy profité di ñaan suñu kilifa diine ak aada ndax ku artuwul dinga nga te fagaru moo gën faju comme niñ koy waxe ñun dey saa yu ñu ñu ñaanee nangul nañ leen waaye ka ca des saa yuñ ko ñaanee bu ne waaw tamit bu wëlbatikoo safaan ba lay def te am naa yaakaar ne ku nekk Sénégal gis nga loolu gis nañu nag jaay doole gi am ci réew mi ndax man dama bëgg a nekk mbërum làmb moo xam ne raaye buñ fi teg dama koy yanu waaye bépp mbër boo xam ne tolloo naa man doole dinaa fexe ba sàkkal ak fexe ba doo bokk man daal li ñuy wooyee ngar di rek laay bëgg di jàkkaarloo ñëpp di ci teg seen bët ku fël nga ne dana koy fàdd kii du bokk foofu nag moo ñu indil coow lii yëpp bu ñu bu ñu jarul ñuy wër-wërlu li teg senegal ci fitna li tax ñu ñàkk ay bakkan yu dul jeex li tax ñu nekk di yàq parce que boo jàppee ay ndaw yoo xamante ne ni daanaka defuñu dara loo xamante ne ni lu dul wax seen xalaat nga jàpp tëj ndaw loola am soxna am doom am ay wayjur danga rey njaboot yàq ñaata avenir la yàq ba mu ñëwee ba léegi dafa mel ni ndamam wala boog ay buxaabaam dañ ne ko del tëj nombre bi saasu ne loolu nag bu amee képp koo xam ne boo waxee ñu dégg la war ngaa wax même bu la dégluwul histoire dina wax ne kat bañ ca tollee waxoon nga am na nag ñiy wax waaye am na ñu yaakaar ne xëy na seen kàddu bu jibee dinañ ko gën a dégg te loolu faw mi am ci ci ci ci fànn yépp ah suñu jógee ci tëj yeeg xoqatal geeg waaye gis ngeen ñaata nit ñoo génn ci kaso bi di wax xeetu métital yi leen di métital ngir wax loo leen li ñu bëgg a dégg loolu day yaakaar nañ ne xëy na ci camp nazi yi lañ ko daan gis walla fu mel ni ay Corée du Nord ak yooyu mais loolu moo am fii tey may ñaan mbooleem ñi ñu koy defloo nañu xam ne mën na doon seen rakk mën na doon seen jarbaat mën na doon sax seen goro ëllëg ndax àdduna dafa gudd tànk nañu xam ne tamit ñetti fanu bàmmeel ku koy xalaat ak nguur gi changé ku koy xalaat am naa yaakaar ne looy def war nga ko xoolaat a ah, li nga xamante ne nii jàpp nañu ne jamono yii moom mooy coow lu bari li moom mooy moo ngi jugee ci nemmeeku tuur bi ndax président Ousmane Sonko dafa wax ak askan wi ne leen dama fas yéenaa dem saafonteeg askan wi woowuma kenn organiser wu ma meeting ci jàmm ak salaam dugg ci kër yi dugg ci grand place yi waxtaan ak askan wi taataan seen xalaat ak seen ay mbébét ngir mën a waajal ba nga xamante ne ni bu ñu yàlla wooloo ba dénkuñu ñu man cee taxaw tem ba mu waxee loolu lan lañ ci gis commencé na ñëpp ci teg seen bët Macky Sall jëlaat ay takk deram yónni ko ñu dem toppi jour lan lañ gisul drone hélicoptère mel ni dëkk bu nekk ci guerre alors que benn leader politique boo xam ne yéen jàpp ngeen ne candidat wu réseaux sociaux la yéen jàpp ngeen ne ci wax ji rek lay yam et cetera waaye mu jóg ne day nemmeeku ji askan wi ngeen ne du ci daal lu ngeen di tiit bay daanu looloo waral nag coow li yëpp ngeen gis ko provocation sur provocation ñuy calmer suñu ay nit provocation